fel gémmiñu wali sàmm. xam entre parenthèses balaa ngay continuer on me dit que Macky mu ngi Touba il va être reçu par Serigne Mountakha c'est une information de nos confrères de de de Seneweb qu'on en train de de vérifier ça peut être un autre point. ma ne sëñ Mountakha ba mu ko waxee la mu koy wax defu ko. nan la ko sëñ Mountakha wax. mais mooy lii mu nekk rek Macky Sall dafa dëgër bopp. <laughs> Macky Sall du matt daggul c'est ça la réalité xam nga xam nga xam nga man euh, nit laa ko xam ne may mën a toccum ko ne man su ma waree jooy damay jooy su ma waree ree damay ree su ma meree nga xam ne mer man nekkuma ci naa fekk googu nit ñi di wane moi je suis pas dans ça moi je entier Macky Sall des fois nga dégg ñu ne wax leen ak ak ñi war a wax wax leen bu ngeen waxul dinañu leen euh, ko artuwul di nga àtte mais kilifa yi wax nañu ñaata yoon la kilifa yi wax ñaata yoon la kilifa yi wax ak moom damay reculer rek ci kaawu Karim Wade seen Sidi Motaar ñaata yoon la ci wax ak moom gëmul li nit ñi gëm ci beneen niveau la nekk Macky Sall li ko neex lay def li mu bëgg lay def may mun a def li la neex am li la neex mënul nekk dangay def li la neex nit ñi def li leen neex foofu mu jëm ci sëñ Muntaxa dara bu ko waxee mu ne ko waaw waaw yëngal bopp ak ak saa bu génnee def lu ko neex et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné son dialogue pour en parler comment tu peux comprendre qu'il fasse le dialogue le mercredi dëkk bi takk le jeudi et taal bi takk ci dëkk bi c'est une réponse à la virulence et à la violence des paroles lors de son dialogue hmm. sëriñ bu jàkkaarloog Macky Sall naan ko président gëmmal te dóor keneen ki daggee ci làng ga naan ko président gëmmal dóor waaye booy dóor deel xoole mais booy yi am nañu fulla ak fayda. la nature à horreur du vide. d'accord moo tax la moo tax booy yi bi ñu xippee. une partie mais... était au dialogue. ma du ñoom ñoo sekk. ma ne bi. booy yi bi ñu xippee fayu nañu gëmmal dóor xooleel dóor xippi fayu.